aca jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokk internet bu 221 people ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di delloowaat ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat li di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni mu ko far di def ak kilifa yëpp te ñu fas yéene benn kilifa di kàngam nga xam ne kenn du ko présenté ci biir réew mi àddina wërgal këpp ñoo ko safoo kooku mooy Serigne Bassirou Touré Al Khourane moom nag tey nag fas yéene ñoo waxtaan ci xam yaatal ci bu baax a baax waaye lii di xew-xewu jamono dinañ ci dellusiwaat ndax ñaawteefu li nga xam ne ñu ngi koy gis ci biir réew mi bëgg na cee waxtaan euh, Serigne Bassirou Touré damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan mi asalaamaaleykum wa rahmatullah yaaram maa ngi lay siyaar ba yaa ngi ci jàmm ñu nuyu ñëpp ñu ngi siyaar ñëpp ñu ngi baal xaq ñëpp ñu ngi nuyu nag waay nekk nag moo xam bitim réew la moo xam réew yëpp la moo xam Sénégal gi ñu nekk ñu nuyu ñëpp di siyaar ñëpp ginnaaw bi nga xamante ñi ñaanal suñu xalifa Serigne Mountakha saa borom yàggal ko fi lool te ànd ko wér noonu la ñu wël nga ñaanal mboolem xalifa seen duroo yëpp Serigne Babacar Sy suñu borom yàggal ko fi lool ak xalifa Laayeen xalifa Ñaseen suñu borom yàggal ko fi wér sang bi waaleykum salaam wa rahmatullah tarkalla jërëjëf sëriñ Basiru Touré alquran ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw suñu set yooyu tànt ak dan ñu ngi ciy kontaan dinaan la dalal jàmm comme ni ñu koy def ak say naataango yépp nag dañoo fas yéene waxtaan ci xam-xam waxtaan ci ñaan waaye dinañ fa jógee dinañ waxtaan ci lii di paj xew-xew jamono comme ni ma leen ko waxee ñaawteef yi xew ci biir réew mi bëgg na ci waxtaan waaye ci mbokk sëriñam it am na lu mu ci bëgg indi ay leeral din ñëw ci ni ngay seete ndax seet dafa yaatu ci lan ngay seete waaw sàng bi loolu de am na solo lool ñun nag suñ borom dogalee hmm. ñu dëppee ñu sëriñ Basiru tur alquran ah. quran ji ñu dëppee nag yàlla dogal ñu lañuy sukkandikoo lu ñuy seet ci quran lañ koy seet ah. moo xam listoxaar la hmm. moo xam quran ndax quran téere bi ñu téye ni bu ñu ko jàkkaar lool hmm. mënees na la wax seen mbir yëpp maanaam ñun lépp suñu quran la dañuy xar dañuy seet ci quran ji waaw lépp rek xuraan ndax bari nay façon ndax nit a ngi tëni nit a ngi seet si ndox nit a ngi seet si leneen leneen nit a ngi am waaye ñun nag ñaar ji lañuy seet mhm. mooy xuraan ji mhm. ak li saxaar ah. ñaari si lañ nekk incha allah. tarkalla mhm. damay ñëw ci beneen ponk yaatal ci bu baax a baax mu di tële di néew kàttan ngóora euh, li ci ëpp ci jamono ji nag euh, gis nañ ko ci góor ñi mu di ndaw ñi lan nga leen ci baaxee. waaw sëriñ bi maanaam néew kàttan. Hmm. daa bëri façon. mooy tële. Mm. maanaam nit dana tële mënul boppam dara wala nit dana néew kàttan ah. mënul boppam dara ñun nag das koy saafara das koy def traitement ah. ba mu wér. Mm. bopp doomu aadama ndax bari na si ñoo xamante ne si teel lañu wax na nañoo toog seenu seenu soxna duñ ko mën a dara. Ah. jàpp na te fekk na feebar daa am ci biir. Mm-hmm. feebar bi am ci biir nag ñun bu xamee feebar ban la. moo xam seytaane la moo xam rab la. Ah. lu man doon parce que saafara bam set wicc moo xam tële la moo xam néew kàttan lu mën doon rek parce que saafara bam ba mu wér dama ñëw ci euh, ak hémorroïde waaye laata ma ñëw ci hémorroïde ñëw ci ndoxum cité ñu bëri ñu ngi koy jàmbat da leen a sonal ndoxum cité. waaw ah. dafa bëri nag. Ah. ndax ndoxum cité mooy ndayu hémorroïde ndax hémorroïde si ndoxum cité la juddoo. dana bëri façon nag. waaw ndoxam si dana waral bopp buy tànkuy tàng jër. ndoxum si dana waral bopp buy karaas. di hmm. dagg di ruus. ndoxam si dana waral ndigg luy metti ku jàpp jàmbat na ndiggam di jàpp ndiggam lu bëree bëri. Hmm. ndoxam si dana waral tànk yu metti di xar yooyu yëpp ndoxam si da koy waral. te ndoxam si di li muy yàq mu mën a bëri. te ndoxam si di si la ëmb mën a jege. tali yi ngay wax nii. Hmm. ndoxum sër mën naa jugee si loolu. déggal lii rek ndoxam sër tamit mën naa jugee néew kàttan. Hmm. yooyu yëpp ndoxam sër da ko def. ndoxam des nag da ciy traitement da ciy traitement. Ah. képp koo xam jubóo nañu si moom. Hmm. fukki fan ak juróom incha allah ñu traité la ko. fukki fan ak juróom rek bu dee hémorroïde la tamit des koy saafara ba mu saafaraw. macha loolu moom dañ koy dañ koy faj incha allah. te am nañu ay garab yu baax yoo xam ne. yàgg nañ see jëflante ay nit. même bu see bët lëndëmee sax ndoxam sër day waral bët yu lëndëm ba doo mën a ñu naan cataracte la fekk na ndoxam si da hmm. koy waral mu saafaroo. incha hmm. lan mooy rab rab yan gàllankoor la mën waaw rab moom uh, li mën li mën a gàllankoor si doomu aadama dafa bëri. Hmm. ndax rab mooy àndandoo mooy saytaane rek. Ah. ndax ñëw na si Qur'an mooy saytaane. rab nag saytaane dafa nekk loo xam ne day doxaale doomu aadama doomu aadama buy dox rek am nga rab doomu aadama buy dox am nga rab. waaye am na si rab yoo xamante ne. Hmm. maanaam rab mën naa doon rab bu soxor si doomu aadama muy ànd ak nag mën na laa yàq rab dana tëj doomu aadama boo dootul ubbeekul rab dana fexe nit ba dum yaakaar mu tas. Hmm. rab dana fexe loo xamante ne ak yàqul day am ci moom am de tasaaroo yooyu yëpp day am day am si rab rab dana fekk doomu aadama jëfe mu lakk ko ba mu jeex tàkk. doo hmm. rab da koy def mooy xeetu seytaane. yooyu yëpp day ànd doomu aadama. nit nag rab ba ngay am mu ànd ak yow di la dimbale ndax rab dana di fekk nit mu ñàkk am rab fexe ba mam am loolu rab da doomu aadama léegi nag na ngay fexe rek mooy fexe ba rab bi nga ndàbb ko mu ànd ak yow ba mu jubóog yow loolu tamit bëri ñu yàqule suñu rab da cee rab da cee bokk. ndax mën na yàqule ñu ne liggéey la liggéey la fekk na ñaar yi mu am mooy hmm. moo lay lu bëree bëri. loolu presque saafara bu saafara nit bu amoon xool nit bu daanoon rab. bañ hmm. bëgg a dee. Ah. indi ko fii suñu. Hmm. balaa balaa balaa mat cinq minutes laa la may rab bi dana génn ci moom te xam maa ko am incha allah. acca kooku mooy Serigne Bassirou ture alxuraan nee naa leen képp ku ci am jafe-jafe rab rek fexeel nga yóbbu ko ci moom ndax xam naa moom su ko tegee bët rek su jëflanteeg moom dina dañ feebar boobu dina dañ ci moom. acca dama ñëw ci xalwatu lan ngay duggee xalwatu ak ñi nga xam ne dañ laa sopp pour nga dugal leen xalwatu. waaw yaaram xam naa ne xalwatu moom ndax euh, ku dégg sëñ Bassirou Touré alxuraan. Hmm. sa xel war naa dem sa maamam ju tedd ja ndax pourcentage amul solo. waaye rek fa ñu bokk ma aja nañ ko wax. Mhm. muy euh, Cheikh Abdoul Karim Touré. Ah. ku ko xamut Jibril alayhi salaatu wasalaam daana ñëwee aw meloom. moom meñ suñu waajuru góor wala bu maam Cheikh Mbaye mu Louga muy waajur suñu saa Mbaye. Ah. waajurum euh, magam bu jigéen moo jur suñu waajuru góor mu ñaari fàll. Ah. kon bu ñu mëntu ñaan ñu dañoo ko war a laaj. Mhm. waaye dama daal xalwatu yeneen tamit alayhi salaatu lépp lu am rek xalwatoo ko may. xalwatu wax nañ ne dana gaawali mbir lool sax dana fekk fu dara nekkul xalwat def fu dara. ndax yeneen bi toll nag bi may jëm yoo xam ne même li koy wuyusi ba ko dalaan wuyusi. si biir xalwat. nit koo fi gis mu tàkk rek. Mhm. wala mbiram gaaw ko wuyusi rek defal ko xalwat. xalwat dana fekk foo xam dara nekkul fu mu def fa dara. mooy xalwat kon ñun xalwat des koy liggéey. Mhm. te képp ku kuñ ci dugal xalwat incha allahu rabbi am na yaakaar si yow lépp looy wut da ko am soob yàlla incha acca euh, pour ñu nga alxuraan ji lañ ko macha allah acca pour ñi nga xam ne bëgg nañu ñu duggal leen xalawat bu leer naañ fexe leen ngeen woo kii di sëriñ Basiru Touré alxuraan ndax suñu borom moom dénk na ko ci mbir yu leer naañ acca dama ñëw ci cat moo sonal nit ñi de waaw maanaam cat de <laughs> li may naan cat bu la rëyut semmal la waaw maanaam euh, nit ñi dañoo négliger si lu bëri mooy cat barki de maa ngi ko wax fii ma dëkk si Kër benn borom place boo xam place bu nga toll ca kaw kawe lool fan yii jaar ci koor gi ñaari ca place bi dafa jékki-jékki daanu am na ci ñu ñàkk seen bakkan sax waaye ñaari bàyyiwut xel yi mooy génne asaka wala cet def seen bopp cet mooy fekk fu dara nekk mu yàq ko nit da nga gis nit ku am xéewal am àddina ak li ci biiram cet dugg si moom yàqal ko gis nga nit ñu yàqul yëpp liggéey yàqul leen cet moo leen yàqal cat day fekk garabu naat cat yàqu ko te ñaar yi rek mooy làmmiñ ak bët boo doon wax armoire bi armoire da ngay xës bi armoire maxe wala mu yàqu bu doon garabu noonu lay demee garabu da jékki-jékki kon noonu lay def doomu aadama. ndeysaan. Mm. dana téye nit ba nit tëju ba amati dara téye ba nit dootu amati dara. te dana fexe nit lu mu lu mu dugg mu yàqu dana fexe sa loxo bi mënoo si téye dara. te mm. day def loolu. Ah. wërsëg doo doo ko am doo ko bari le mhm. te mën nga koo bëri la lool sax waaye ni muy yàquwaat da yéemi ca dafa garaaw li muy def doomu bëri na te saafara ko nag am na ñoo xam ne yombul ci ñoom ñu des koy saafara mu si wécc incha allah te lépp la si alxuraan ñi lay doon waaw jaajëf lépp si alxuraan ñi lay doon des koy saafara mu si incha allah acca ay mbiram yëpp da koy jëflanteeg yow la alxuraan ngi bëgg a wax ci sa mbokk sëriñ si waaw yaaram loolu de moom des des si sawar lool ndax ñun dañoo dañoo doon jëm yoo xamante ne euh, li ñuy gis wala li ñuy dégg. Ah. daf ñuy metti lool. Mm-hmm. ndax euh, sëriñ si dafa bëgg jamono ji bëri na trop trop trop trop trop xaw la nag ah. waaye ku ne ku ne ku dugg rek na ma nekk naab sëriñ ku ne ñun rek naab sëriñ mm-hmm. dañuy dimbale ndax jàmbat yi mi ngi ñëw si ñun de nit ñi ñu ngi jàmbat ndax nit dañ la wa téléphone na nit dugal naa sama xaalis. mënutoo ma ko jot téléphone booleke dama whatsapp. loolu dafa ñaaw. ñaaw la nit koy liggéey xamoo lu mu liggéey alalam sonn ci lool jox la nga booleke ko whatsapp loolu dafa métti. métti na lillahi wa rasuli ñi nekk ci mbir bi te bokkuñu si nañ ci génn ndànk dañuy dee de <laughs> te kenn ku ne da nga sa bàmmeel. Mm-hmm. sëriñ bi daa wax ne bay na loqatal naqiir wa loqatal fatil sal tàndarma ci boo ko xaree lu sew lool si biir ku ko yor ne da nga ko fa yowal xiyaam mu waxaat ne bay na jàmmaha oo bay na xaar na mm-hmm. mooy fayantoo nee na xar mu mbëkk morom bu yowal xiyaam danañ monte xar yi monte mu fayu kon jàmbat bi bari na si doomu aadama si sëriñ ah. ñenn sëriñ si kon nañ nañu wattandiku képp koo xamante lii nga def xamoo ci dara mënoo ci dara nga teel ci génn te bàyyi naxee gi mm-hmm. wax lu du dëgg gi nañ ko moytandiku te bëri na trop loolu maa ngi koy wax sama sama sama sama mbokk yëpp nag. dina xam ne képp koo xam li ñuy def mënuñu ci dara ñu teel cee génn. Mhm. moo gën ndax ah, képp koo def danga jàpp sab der doo nga yàq waaye deru ñëpp nga yàqaale. Mhm. deru ñëpp nga yàqaale kon nañ moytandikuwaat baax ko loolu ñu metti la. Ah. lu ñu metti la ndax saa su ne nit woo téléphone na amul lu mu ñàkkut si sëriñ te sama aajo foo jot te bu ma koy doot ma ko jot téléphone. bu ma koy dut mu ci téléphone doon moo moo moo njëkk ñaaw. Mhm. loolu moo njëkk ñaaw kon loolu nañ ko moytandu ngir jëm Sëriñ Tuubaa ngir jëm suñu borom. nañ ko moytandu moo gën. wax ji bëri na ku ne ku nekk ngi génn di wax. te fekk na ko si fëggoon laaj ko dara dana des du bëree bëri kon loolu nañ ko moytandu mhm. dëgg dafa am solo. nañ ko loolu. daf ñoo metti loolu nag yàlla xam na ko. waaw am xam-xam daal moo wóor ni ko sëñ Bassirou Touré waxee euh, na ngeen di xool li ngeen di jëflanteek jaamu yàlla am na ci solo. atia fa may jeexale tey bokk na ci xew xew jamono mu di actualité dëkk bi metti na ñaawte fi ci xew jamono ci léegi lan nga dëkk bi soxorante gi dafa bëri trop sa morom amul dara nga iñaane ko moo fi bëri. Mhm. Hmm? <laughs> wér xol yi moo yaatuut. Mhm. te waroon ñoo yaatal xol baax. président Macky Sall bi fa yàlla teg mooy mooy suñu président ñun ñëpp nañu yërëm yër ñu. Mhm. tatagal ñun gunge ñu dimbali ndaw ñi ñu am xëy ndaw ñi tamit ñoo xam ne Macky Sall moom la fa yàlla teg nguur gu jeex na amut nguuru yàlla rek moo du jeex. Ah. waaye jamono ji comme ni nga wa ah. raayante yeeg ak wax lu du bon yeeg soxorante gi moo fi bëri nit kenn yéenatut kenn dara. te lépp nag balaa lay doon ndax bu ñu ba yéenatu kenn dara ba xooli xat suñu borom wàccee balaa mhm. deret ji day gën a bëri mhm. ñuy gën di mën di rey nit dañuy rey rek di teg te yëpp ak ak la mhm. te yëpp balaa yoo xam suñu borom moo ko wàcc ndax ñun saa su suñ borom du ñu woon boppam duñ ko gëm nit day suñu borom day tiim nit léegi muy faatu ngay sukuraat muy faatu nga gis wala mu tiim benn mala muy faatu gis te saa borom di la ko wan te mënoo ci nangu dara ñun lu tee kon ñu delloowaat suñ bopp suñu si yàlla lu tee ñu delloowaat suñu bopp si jaamu yàlla lu tee ñu yaatal xol yi ndax télé bi li muy xat xat xat xat bu xol yaatu woon télé bi du xat. lu wér da yaatu lool waaye képp koo si xur rek mu jàpp ne màtt nga ko xoli yi hmm. ñun ñëpp nañ nañ nañ bëggante soppante waat te xam ne ñun ñëpp ay doomi aadama lañ ñoo bokk soq ko sa diggante si maam aadama. Ah. waaye jamono ji dafa tasaaroo léegi jamono ji metti na. Hmm. ku am dara ku fi am as tuuti. Hmm. ñu iñaanal la ko. Ah. ah ku fi am dara bul dañ biiw biiw biiw. ñu lay jëw di la ki iñaan. loolu nañ ko Euh, euh, nangam la nekk Dubaay nangam nangam nangam nangam waaye am lu nekk fii su ñun moo gën a pire loolu fuuf te waxuñu ko ñun ñu ngi fii di rayante di def nekk suñu noonu te waxuñu loolu. Mhm. ñu wax li nekk suñu biir réew mii. mu mën a saafara dëgg dafa am solo te dëgg mi ngi mën a kaani nga saani ko si bët doomu aadama toxoñu mhm. lañu. Mhm. kon ñu waxante dëgg nañu bëggantewaat. Ah. nañ soppantewaat nañ bàyyi soxorante gi di rayante suñu biir. amul benn njariñ. te képp ku ray fi bu yow xëy da nga dégg suñu borom. te boobaa suñu bopp dana roq sa ndig loolu mu mat naa bàyyi xel loolu. jërëjëf Serigne Bassirou Touré alquran acca dañuy bàyyi nga tàggatoo. waaw yaarab ah, ah, ak sa ah, question yi am na solo lool kon loolu la ñuy wëlbatikoo di siyaari ñëpp nag di baalu xaq ñëpp hmm. di la wax la tamit képp ko xam ne bëgg nga sa ajo faju na nga dégg teg ñun waaw loolu moom ñu ñu ngi la koy waxaat hmm. ku bëgg sa aajo faju dañu déggante wat bu ñu déggante sa aajo dana faju hmm. moo xam aajo ba ma ne am nag. waaye am na loo xam ñu koo faj. Mhm. mënuñoo faj euh, cancer. mënuñoo faj xalaatu mënuñu ko sax tension mënuñu ko. bokkuñu ñi nga xam ñoo ma lépp ndax yàlla doo nga mën lépp ñun mënuñu lépp. waaye tension. Mhm. diabète. Ah, cancer. ak yeneen feebar yoo xam ne ñun mënuñu si dara mënuñu koo ko teel wax <laughs> bëri na ñoo xam ne loo wax ñu mën ko faj kon loolu ñu ngi koy ñu ngi koy bàyyi ñu mën a saafara mooy. Mhm. nit bu amee cat mën nga ko saafara suñ diggante suñu borom. nit umoo mën nañu ko saaf ndigis ba amee rab mën nañu ko saaf mën waaye ay tanta léeg-léeg nangam nangam loolu mun kon loolu ñu ngi koy yëgal ñëpp képp koo xam ne fu wépp waaye mën a nekk rek boo dégganteeg ñun wàllum jàqare insha allahu rabbi si kàttu borom si kàttu quraan jii dana la si jàpp dana la si dimbale ñu ñëpp di wàcc suñu kàddu foofu di ñaanal mboolem xalif suñu nuroo yëpp suñ borom yàggal leen fit wéeral leen kàttan na leen di ñaanal waa bi euh, na leen mu àgg foo xamante ne kawe na lool. amiin amiin kawe seen jot yàlla nga ko saabu doon def. alhamdulilah barke waaleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf